xam ne ñoom ñoo jàpp ne dañ leen a tooñ muy soit waa l'observateur soit waa quotidien soit waa le soleil ak yeneen i yeneen i sénégalais yi nga xam dañoo jàppoon ne xëy na ñooñu dañ leen a tooñ parce que dañu détourner seen ay une def ci leneen dama jàppoon ne ñoom ñoo porté plainte euh, ma gëm ne ba ci ci état de droit ku ci nekk man fem fii ñu toog nii di wax man ak yow mhm. Pape Makhtar soo ma waxee lu ma naqari li ma li ma état de droit may mhm. mooy ma dem porter ji plainte dëgg la donc ñooñu dañ ci am droit mooy mhm. dem porter ji plainte porter plainte pourquoi parce que bëgguñu euh, su la Pape Makhtar tooñee nga dóor ko kurbañ ci mbedd mi bëgguñu soo dajeeg nit ci mbedd mi mu saaga la nga génne fetal dóor ko wala nga génne paaka jam ko loolu moo tax ñu naan da ngay dem nga porter plainte mais bu ma liiree maître euh, Bamba Cissé tey te wax dëgg yàlla aw ma benn raison pour douter ci ay mm-hmm. propos maître Bamba Cissé parce que boo xam ne yàgg naa kaa déglu te bariwuma lu may dégg muy wax ay safaan wala mu wax loo xam ne waa du caaxaankat mm-hmm. du wax loo xam ne ci bànneexu bakkanam la ko mm-hmm. teg tey mu wax ne moom li ko jaaxal moo di ne du l'observateur du le quotidien du keneen ku porter plainte ñoom euh, Ousmane Diagne ak Papito Kara c'est le procureur de la République moo ah autosaisiru man c'est ça que je comprends pas c'est-à-dire que procureur mi ngi auto ci autosaisiru loo xam ne man dama naan euh, ci ban état de droit la nekk parce que boo xoolee li fi rang yëpp yëpp li fi rang yëpp di xaar procureur mu war mu nekk ay problèmes yu war a lijjanti maa ngi wax sànq waxu inondation ak ñan jox xaalis ba ñu waroon koo liggéey te liggéey ba ñëpp euh, député yi wax ne baaxul muy auto autosaisir pourquoi parce que dafa am ay xale yu toog seen kër yor seen téléphone di def revue de presse avec euh, ironie wala nuñ ko nu mu leen neexee nañ ko tuddee noonu dafa ay xale yoo xam ne dañu am accès euh, ci YouTube wala Facebook wala feneen jël ay une journaux di ko détourner man mënoon naa ne sax ñooñu mënoon leen mënoon nañ leen woo rek woo. Mhm. yedd leen. absolument yedd leen. Mhm. woo leen rek yedd leen ne leen mhm. lii baaxul bàyyi leen ko. mais jël nit quand même Pape Mokhtar. yóbbu prison. pourquoi parce que dafa détourner une journal yóbbu prison mandat de dépôt. parce que dafa détourner une journal ça rappelle une chose Pape Mokhtar. gis nga. en euh, je crois mille deux non non deux mille trois quelque chose comme mm-hmm. euh, dafa amoon xëccoo bu amoon ci diggante Youssou Ndour. mi nga xam ne moom la ñu détourné unam tey. ak euh, groupe Comset. boobu group comme set Tall lañ waxoon ne moo ko moom. Mm-hmm. mu dénkoon ko Racine Talla <laughs> bu RTS. Uh-huh. ak Yakham mbay bi yore Soleil tey. Uh-huh. ñu xëccoo journal bi ak euh, Youssou Ndour ak Cheikh Tall Dioum. Mm-hmm. gis nga biñ ko xëccoo ba xëccoo gi metti te ñoom mënuñu nangu populaire ci loxoy Yakham Mbaye mi nga xam ne moo ne woon directeur publication ba mhm. xam nga ne Youssou Ndour ak Cheikh Tall jum def dañoo xëy suba créer pop original pop original mhm. boobu du ko fàtte mukk parce que jour bi pop original di génn ak populaire man boobu man maa doon chef desk politique et économie du populaire mhm. jour bi pop original di génn mag ma fekk gàmmu Tiwaawan xoola ñu indil ñu ñaari ñaari journal bii populaire bii bii populaire original ñaari benn la amul dara lu leen différencier ñii def seen une ci sëñ Mansour ñii def seen une ci je ne xamatuma lan la mhm. pop original bu boob boobaa xam nga nu ñoom yaa xam bay def mhm. porté wuñ plainte Youssou Ndour waxuñu nañu poursuivre kenn kenn dañu saisir le juge des référés Mm-hmm. le juge des référés moom moo wax ne na ñu arrêté pop original sur le champ mm-hmm. ñu arrêté ko sur le champ populaire continuer xam nga Youssou ñoom Youssou après nu ñu def mm. dañu dem créer l'office office xam nga fan la jógee mhm. ci off yi daan off yi populaire daan def moom lañ jël def ko office def ko office mhm. mais loolu am na fi bien sûr loolu amul euh, et d'ailleurs li xale yi def je considère que c'est c'est moins parce que ñii ci réseaux sociaux yi la ñu yem mais bien sûr alors que à l'époque le journal le populaire ak le journal pop original mhm. ñaar yëpp ñu nga xëy fekk leen ci marché bi ci kiosque yi même même journal même journal même charte graphique et tout nga fekk leen ci kiosque yi te booba kenn demu ci kaso mandat de dépôt kenn police convoqué wu ci kenn alors bu ñëwee ba en 2022 ñu jàpp ay xale yóbbu leen kaso ndax ah, loolu. dama naan je regrette man j'étais parmi les premiers à dire que amu leen droit di détourner une journaux yi. Mhm. man d'accord ma ci loolu. mais kon euh, ñu de ñu yóbbu ay xale prison ndax loolu dama ne c'est extrêmement grave. Mhm. beneen bi mooy Ousmane Diagne. Mhm. man je l'ai jamais rencontré xaw ko miinu ma ko mais quand j'ai lu. ñu ne parce que on lui reproche dafa partager une yooyu ñu détourné ba pare def ci nu mu tudd. ay sourire ay ay émo xaw ma emojis. waaw emojis sourire yi. sourire. Mhm. mais ça devient grave Pape. vraiment dire que réew mi tey ku dem kaso. waaw ah, waaw. <laughs> comme ça émojis mooy loolu di. <laughs> mooy reet soit gars yi dañ koy def parfois def ci ay reetaan wala def ci ay jooy wala def ci ay kër wala yeneen ak yeneen man sax léegi ku ma yónnee di kër wala ay reetaan ma la del yëf <laughs> balay procureur di ma woo mais quand même on a on en rigole mais c'est très grave absolument dëkk bii ni ñuy privé nit de liberté dafa yomb non dafa yomb trop dafa yomb trop et d'ailleurs ku génn kaso bu ñëwee wax la ko ne la la ci kaso bi tëdd quatre vingt dix pour cent yi wala au moins cinquante pour cent yi mënoon nañ bañ a dem kaso. dëgg la dëgg la ah, dëgg la dëgg la waa euh, euh, ah, Seydi Oustaz. ah Oustaz nañu ñaanal nag màkk la jóge Oustaz ñaanal ñu. <laughs> dëkk bu tedd te nga ñëw ci bisu tam xarit. bésu tam xarit <laughs> waaw tey ñëw ci bésu tam xarit encore ci <laughs> saa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax Pape Matar maa ngi lay fay jaare ci yow nuyu sa équipe bi yëpp mhm. euh, ñu ngi lay doon suivre depuis euh, fu sore foofu mhm. euh, di topp fi ñëpp bëgg a dem a <laughs> mhm, di ñaan yàlla lépp lu ñu am rek yàlla nañ ko bokk mu nekk barke itam ci Sénégal gépp ñëpp bokk ko incha allah yàlla yàlla tàggante ci tak-tak yi saafara ci jàngoro yi teggee ci tiis yi Euh, solutionné ci problème yi ba ci problème yi nga xam ne Moustapha mu ngi koy junj nii. Mhm. Euh, ba ñu génn ci situation boobu nga xam ne kuré rek ñu ne la kaay wuyu. <laughs> amiin amiin yàlla mën na ko te yàlla na ko def. Oustaz ci yow dañuy des ci euh, ci tamxarit nga wax ñu solo si tamxarit lan mooy tamxarit laata ñuy duggaat ci actualité yeeg société ak politique. voilà tamxarit day euh, bu ma koy résumé euh, quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci liñ ciy def nii ci Sénégal yëpp ay ay aadala mais ba euh, nekk bu mu nekk aada du tax ñu ne dañ ko fi dindi rek dal di ko sànni ci ca ca ca fu sori am na ci yoo xam ne mënees na ko bàyyi ndax am na cëslaay beneen façon cëslaay ci diine ji li muy bëgg a wax mooy tamxarit mooy taasoo ak asura taasoo mooy neuvième jour année bi. mooy weer wi ñu tuddee muharram neuvième jour bi mooy taasooa mooy jour bi ñuy lekk cere yi ashura mooy dixième jour bi mooy comme suba hmm. loolu mooy ñaari jour yooyu ñaari jour yooyu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw madinal a bi mu jógee màkk gàddaay dem madina doo fekk euh, juif yi di ko màggal di ña màggal ñaari bés yooyu hmm. yonente bi laaj leen lan moo tax ngeen di màggal ñaari bés yi ñu ne ah ci la yàlla musalee woon yonent yàlla Muusa ci Firawna te suñu waay la moo tax ñu koy màggal euh, léegi nag euh, yonente bi ne euh, ñoom asura lañ doon màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne taasuwaa bi weesu na waaye dinaa woor asura bi muy fukkeelu fan bi yonente bi woor ko mm-hmm. nee na mu ne leen yéen ñun ñoo leen gën a yey ci muusa mm-hmm. yonente bi nag bu ne bu déwénee damay boole ñaari jours yi neuvième jour bi dama koy woor ak dixième jour bi mais mm-hmm. balaa at mi di ñëwaat fekk yonent bi génn àdduna mm-hmm. mais terewul lépp loo xam ne yonent bi dafa euh, dafa jël décision pour def ko mm-hmm. def ko sunna lay doon lu mu def sunna la lu mu naroon def te mënu ko def boo ko defee itam roy nga ko loolu moo tax ñuy woor euh, bésuk tamxarit bi juru cere yi ak jour bi ci topp ak lendemain bi voilà loolu sunna la ci am na nag yeneen yoo xam ne euh, nit loolu kenn du ko tere nit encore nit bu nee daal dama bëgg a jàng junni xul ñu ne ko bu dee ak benn itam lu jàngal rek. Mm-hmm. Euh, loolu kenn du ko tere nit. am na ñuy euh, ñu ci tusngalu. tusngalu waaw tusngal itam dafa baax ci bët. l'islam confirmé na ko science itam confirmé na ko. Mm-hmm. kon loolu du ñu ko tere nit euh, raay bopp jirim. Mm-hmm. raay bopp jirim nag wax naa ko ci suba si ak di jëmelo. ma ne leen raay bi gën a baax daal moo nga jël vingt raayee ko ko waaye bu dee 30 sax mu gën a baax dàmbee ko ko <laughs> waaye raay bopp kese kese <laughs> loolu da koy sonal <laughs> loolu loolu du tax mu ree comme ree bi ñu doon wax sànq mhm. loolu mooy raay bopp jiri mooy yërëm ko rek mooy dimbale ko boobu itam kenn du la ko tere euh, ziyaara borom xam-xam itam nee nañu dañ koy def ci bés bi loolu itam lu baax la moo tax ñu euh, indi la fii voilà <laughs> ziyaare la waaw ziyaare na ko jóge màg <laughs> <laughs> voilà loolu loolu mooy euh, mooy histoire tamxarit ak fi mu fi mu jóge dafa am nag euh, yoo xam ne mhm. historiquement dafa coïncider ak jour boobu mhm. mu jox ko beneen euh, beneen dimension mhm. bokk na ci comme ni ma ko waxee sànq yonent yàlla Moussa ci la ko ci la yàlla labale woon na musal muusa ak ñi mu àndal Euh, yonent yàlla Ayóob mhm. itam ci la ko yàlla euh, yàlla musalee ci feebar bu metti bu bu mu feebaroon mhm. naka noonu itam yonent yàlla noox ci la ko ci la gaalam boobu terse euh, ci fi ñuy tuddee jóodi mhm. yooyu yëpp ay xew-xew yu ràññeeku la ak zone noonu ci la ko yàlla génne ci biiru jën wa mu mu mu génne ko musal ko yooyu yëpp ñu ko seete ay fee la Karbala itam xeex bu historique boobu. Mhm. Euh, te Ousseynou di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ci àdduna. Mhm. ci bés boobu la amee moo tax bés bi léeg ñuy werante ne ndax bésu naqar la wala bésu bànneex la. Mhm. jarul werante lundi mardi mercredi jeudi ba jour semaine bi yëpp jeex boo ci jël historiquement di gis. ci am ci lu xew loo xam da ngay naan bii bésu naqar la mhm. am ci loo xam da naan lii bésu bànneex la mhm. waaye bés boo xam ne sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko faat itam boobu bésu naqar la ci ci ci xoolin woowu te muy euh, Ousseynou muy mhm. Karbala boobu moo tax léeg-léeg ay jullit a faat ay jullit ko faat fa xeex diggante jullit loolu mu nekk loo xam ne itam euh, accident historique la boo xam ne euh, bu catastrophique la ci ci ci l'islam yooyu itam ci bés bi bés boobu la xew Euh, ñu aada yi nag nga xam ne tamxarit bi ñuy def nii ci cere yeeg yu mel noonu. taajaboon taajaboon ak lekk ci cere. góor sol yore jigéen jigéen sol yore góor jigéen ñu sol yore góor ak ku ci lekk suurul dee. Mhm. Abdou Jàmbaar ñaari malaaka la. dañ lay peese bii ci kaw bii ci suuf. dañ lay peser boo diisulee ñu ñu yóbbu la yooyu yëpp ñun ñoo ko ci xoromee rek mooy li sëñ di wax ne xoromu diine la. <laughs> Moussa Moussa Fagé daan wax ñun ay tuubeel lañ. voilà dañ ko ci dañ ko ci yokkaale mais am na ci loo xam ne socialement dafay kii maanaam caa jëboon. Mhm. li taxoon euh, parce que baat bi ci boppam euh, dañ ko jëlee sax ci alxuraan. parce que mag éducation mag ñi la woon. Mhm. parce que euh, verset coranique la atajaboona alayya wa mhm. tadxakoona wala wala tabkoon loolu mooy verset bi ndax da ngeen di yéemu ci li ma leen di waar ngeen di ma kokkali di ma ree hmm. te fekk ngeen waroon jooy yonent bi loolu la waxoon ñi ko doon weddi hmm. léegi nag euh, waaraate boobu la taalibe yi doon dem ci biir kër yi di ko di ko di ko jàng noonu hmm. pour nit ñi mën a waaru ci diine ak yu mel noonu mooy atax taaj waaye ñu soppi ko ne taajaboon wóolay <laughs> ay taajaboon alayya wasam si wóolay wala fa wóolay wasam si wóolay watoa wóolay yooyu noonu lañ ko <laughs> ku ci nekk yaakaar naa jaar na ci <laughs> taajabooni naar voilà voilà voilà taajaboon naar yaakaar naa amoon na fi euh, euh, daaneelal foofu encore waaw cere yi itam li mm-hmm. lekk ci jour boobu mm-hmm. amul fenn foo xam ne dañu ko junjee ci ne. ne nañ togg cere. nañu togg cere bu dul cere nangam nangam. nañ ko tradition xam naa oustaz ku sant Ndiaye moo ko créé. wala séeréer yi rek ah, wala wala tey ñoom kenn ñëw ji laajal séeréer yi ñoom maam biram gisoo fi kenn gisoo fi kenn xam naa ñoom lay doon kay. <laughs> fàtte woon daal oustaz ngi. Ah. en tout cas am na solo ah. bu baax a baax.